Home Choice Sénégal ak marque bii di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Serigne Saliou sek dalleen ak jàmm nataalub maire bu ndakaaru daanaka fépp ci yéene kaay yu nu xëyandool l'observateur ne la ko waral moo di démb lan ko doon àtte journal Futurs Médias bi ne Barthélemy Diaz cour d'appel bu Dakar joxe na dogalam ci liñ ko tuddoon ci faatu ko Ndiaga ca buntu maire bu Mermoz Sacré-Cœur juge bi dafa dëggal dogal bi nu jëloon ca première instance mu di ñaari ati kaso yu muy tëdd ak juróom-benn weer te loolee maire bu Dakar tëdd cassation lan jëm ngir kase bilép verdict las ne verdict ba kay démb la daanu maire bu Dakar di Barthélémy Diaz ñaari mandaam yi mu amee muy maire bu Dakar bi muy jiite ak député ba mu doon ci assemblée nationale yépp a nekk ci danger journal L'Info ne bukki ba màttoon Khalifa Babacar Sall moo koy yootu bés bi la journée dëgg la gannaaw Khalifa Babacar Sall Barthélémy Diaz itam condamné nan ko cour d'appel bu Dakar dëggal na ñaari ati ak juróom vox populi mu dëggal fa ay kàddoom ne muy maire bu ndakaaru di député ba mu doon ci assemblée nationale dara la ca dul bàyyi lépp lay boole doxal si du quotidien lu ci mën di am daal mbirum Ndiaga Diouf ma tàbbalaat na maire bu ndakaaru di Barthélémy Diaz ci njàqare professeur Ndiak Fall ci biir yéene bi ne fii ak atte bi jeexagul Barthélémy Diaz mën naa woy di nekk député ci lu dul am sikki sàkka Daouda Mine ba tey ci biir journal bi ne article la nekk le témoin ne ay mandaam tamit sursis gannaaw bi cour d'appel bu Dakar dëggalee daan bu njëkk ba lii quotidien daan boobee moo tax ba fi mu toll Barthélémy Dias bang yamu toog yépp a yàng tribune yéen kaay ne li leen leer te wóor moo di bii àtte bu wóyee maire bu Dakar di Barthélémy Dias ci ñàkk ñaari mandaam yépp la jëm muy bu maire Dakar di député ba mu doon ca assemblée nationale assemblée nationale moo di pencum ndawi réew mi njiit la di Amadou Mame Diop moo nekk ci xët u njëkk taxawaayu président assemblée nationale dugg see lànk la ñuy def ne duñu jug taxaw ñu taxaw ñun ci communication régime bi fi nekk enquête yéenekaay moo ci def enquête ba xëy becc ko ci aw journal bi ne communication présidentielle ak bu nguur gi Macky raxas ko ba mu set la def fi mu ci journaliste yi la wékk yaakaaram dal di fay tekk Yoro ak Abdou Karim Fofana Abdoulaye Cissé bu Futur Média di leeral waa enquête ñetti ponk yi tax communication a l'observateur Maria Diédhiou ak Aïssa Goudiaby bu l'observateur ñoo ko seq di ko laaj Masnour ne xelam xalaatul mu def ci bii film lu ëpp ñaari téeméeri million ci xaalisu CFA ba noppi di seetaan ñu koy censuré Masnour ne film bi gaañ dañ koy mën a bàyyi mu teg ko ci réew mi lu ko mooy mu jël ko yóbbu ko bitim réew réew mi ministre yi fi fal yees ñoo ngi wéy di jokkalantey lenge démb bëri nañu ko def Matar Ba ak Yankoba Jatara moom daanaka dañ doon tàggat yaram bu nekk ci réew mi mu bay ci waaram tàggat yaram ba tey ak sunu gaynde yi record yéene kaay ne Sénégal ak Bolivie ci seen laale bi Sadio Mané ak Krépin Diatta ñoom la Aliou mi leen di tàggat nara teg ci couloir yi yéene kaay groupe Futurs bi yokku ca ne ci 4-3-3 itam lan jëm ci bii jongante ñu jëm ñun ci libération yéene kaay mi xëy di waxaat ci faatuk Aminata Touré ñu gënoon koo xam ci méta journal bi ne mbir ma ca Kolda la xewe woon journal bi ne ki nu njortu ne moo faat ndaw si yoon teg na ko loxo ba defeere na ko Ndayan Lagos International NCA assurance TDST Touba Darou Salam Karo Eau Kayar ndox mi neex te sell Gambrendi et la Beauty Malaysia mu